melodinya mu nekk vraiment bis bu tiis bu metti parce que vraiment dem bu diis la diis la ci bu talent la mais en dehors de ça nit bu rafet vraiment lañ ko mën a nitu nit bu positif jullit aussi loolu dafa solo vraiment li ñu mën a retenir si moom bëri na. vraiment te njaboot gi xanaa di leen wax ñu muñ rek te parce que ñaari njaboot la am dafa am njaboot professionnel ak njagat boo njaboot boo xam ne moo leen jur ak yaayam ak ñëpp vraiment ñu leen di euh, di leen massaw di wax aussi ñaay dem na mais aussi ñun bépp nga euh, taxawaay ñu ci war a taxaw euh, parce que looloo gën a am solo mooy boo demee bàyyi fi njaboot bu ndaw vraiment ñi nga nekkaloon ci àddina Euh, lépp lu seen wërsëg ñu mën ko sédd ak ñoom ba nga xam ne du ñu tumuranke du ñu jaaxle te loolu suñu kéemtalaay kàttan amari ngoone